salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi doog a yeewu nii léegi léegi mais vidéo kii bi vidéo yi bi maa ngi gis ñu naan waaw il a compris le jeu ah dañ ko naroon toroxal xam fii amul lu ñuy compris yow fekk ay millionnaire ay milliardaire nga naan da nga leen di battre ma wax ku ci jóg ci Sénégal ah yor sa takk bu ndaw xam nga di ko def ay dix mille dix mille ñoo leen dàq a battre foofu waale bu ñuy way ñun ay cinquante euros la ñuy joxe te xoolal deux millions la ñuy yore di ko def cinquante cinquante duñ mayee sax dix mille benn cinquante euros man nga cee génnee euh, six dix mille ñun benn yoon lañ koy joxe ngeen taxaw aj sa garde nangam nangam dafa xam ne yéen yoroo leen tous bëgg a maye da nga a maye rek. millionnaire ga nekkal moo tax mu ne la cent mille cent mille nga doog a yow si moom bàyyi leen xànju ak dóor yi yor naa borom xaalis laa bu ngeen toogee di duul amul fii sa buñ fiy compris da ngeen a war a bàyyi xànju yi ak bew geeg xam nga di xas ñeneen yi di tuutal ñeneen te du ngeen tus loolu la lay waale di wan ku yor du